ñun ñii mën nañu ko seede daana ma di waxtaan man ci lu jëm ci diine daana ma woo ay masalay diine kon day wane ni diine ñoroon na ko te teewu jëm na lu dul jëfe diine ak tegoon tànkam ci siraatal mustaqim du ko fa fekk bii mu génne àdduna ñu nañu ci rafet njor ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadis ñëw na ci ayer ku ci denc yàlla yërëm ko te aljuma mi ngi tàmbali kusaani alxames bu dee bu njëkk ci gàmmeel bu dee aljuma lay إليك المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. jigéen bu jullee julli juróomam

lépp moo ma woon kon bu baax jàppal ni

voilà mi ngi noonu Mara Niass mi ngi noonu di euh, a xool nu ñu koy jéem a jëlee waaye dafa mel ne dafa a euh, ma euh, nekk noonu di dox noonu comme ngeen ko gisee noonu def gazinière bu verte di dem ci levée bi kilifa yëpp ngi ñëw kilifa yëpp ngi noonu di ku ci nekk di jëmbat sa kon mi ngi ci ki nga xamante ne moom mooy borom këram jëm rek ci ki nga xamante ne moom moo fi bàyyeekoo muy muumi ginnaaw rek bi nga xamante ne tam yëkkati na ay kàddu seede ci digganteem ñi ak ñi nga xamante ne ñoom la doon liggéeyal digganteem ak waajuram bu jigéen waaye digganteem rek ak la nga xamante ne sekk na ko ak moom muy njort wala sax lu am loo xamante ne wóor na ko ne te jullit la woon te daan na itam gëstu wala sax di jéem di matal ci li nga xamante ne moom mooy diineem mu mel ne kon am nañ ci moom joxtu bu rafet moom mi nga xamante ne moom moo fi bàyyi ko mu wuy ji boroomam ci weer wi nga xamante ne weeru gàmmu la tombeel waaye rek guddi goo xam ne itam guddi àjjuma ñu fas yéene ko ci jébal boromam muy moom it dañu gay ñu koy ñaanal yàlla mu seen jéggalu suñu borom yàlla yërëm ko xaaree ko àjjana waaye rek ñu nemmee ko fi comme li may waxee rek kilifa diine bu nekk teew na fi tey waaye rek autorité yu bëree bëri itam teew nañ fi tey ci kóllëre gi nga xamante ne kon dox na ci seen diggante ak borom këram seen diggante ak moom waaye seen diggante ak baayam bi nga xamante ne kon mi ngi ci woon muy taxaw euh, voilà ñi jéem a daal di ci sànni ñaari kàddu waaye xam naa nag gis naa dina jafe trop comme ni ngeen ko gisee noonu moom El Hadj Malick Gakou moo nekk noonu ci biir oto bi gis ngeen moo euh, nekk noonu euh, samay naataango journaliste yi nag ñu ngi jéem waxtaan ak moom parce que mu jëm ci sànni ñaari kàddu def ay témoignages waaye nag comme ni ngeen ko gisee noonu euh, du ñàkk nag jëkkal leen li nga xamante ni moom lañ nekk di wax ni dina jafe waaye ñu fàttali moom dafa ñëwoon ci levée du corps bi dafa ñëwoon euh, ànd ak euh, tiis bi nga xamante ni moom mooy xaritam Bougane Gueye Dany donte bokkuñu ay jubluwaay ci wàllu politique waaye nag teewul bu tiis bi dalee si moom bokk na si politiciens yi nga xamante ni voilà ñëw nañ ngi daal di masaw ki nga xamante ni moom mooy Bougane Gueye Dany donc en tant que sénégalais mais en tant que compatriote mais en tant que naataango ñi nga xamante ni ñoo bokk ci li ñuy yëngu euh, Bougane Gueye Dany xam ngeen dafay yóotu li nga xamante ni mooy élection présidentielle euh, naka noonu ki nga xamante ni moom mooy Malick Gakou également gis ngeen ni moom tamit euh, dafay yóotu li nga xamante ni moom mooy élection présidentielle waaye nag teewul comme ni ma ko waxee bokkuñu ay jubluwaay waaye Malick Gakou ñëw na ànd ak cortège am daal di ñëw dugg ci biir jàkka ji daal di saafanteeg nga xamante ni moom mooy Bougane Gueye Dany donc voilà gis ngeen ko noonu muy wax ak suñu naataango journaliste yi euh, journaliste yi noonu euh, voilà voilà wax euh, moom nag comme ni ma ko waxee ñu noonu bëggoon nag yëkkati bëggoon voilà ñu daal di teewlu rek julli bi